ndax oustaz comme ni ñu ko xamee depuis arrestation ki nga xamante moom mooy président Ousmane Sonko dafa entamé woon li nga xamante moom mooy grève de faim ñu bëggoon xam li nga xamante ne moom mooy grève de faim lan la ci diine wax. laaj ngeen ma ko tontu naa leen ci kat mhm. laaj ngeen ma ko te fekkee nga ko tontu naa leen te fekkee nga ko amul leneen. que parce que dafa am ñoo xamante ni dañoo jàpp ni li nga xamante ni moom la ñu ko teg ba mu. Euh, jubli ci li nga xamante moom mooy grève de bañ a lekk bañ a naan ba ci tombe nii ba jamono ji tembe mi ngi fi nga xamante ne moom mooy hôpital ci ñu koy xool ak wér-gu-yaramam moo waral tey ñu ñëwaat pour rajle rek ci li nga xamante ne moom mooy loolu innamal a'malu binniyatin wa innama li kulli kenn ku ne la nga yéene ca la ngay def rek ngay am la mu yéene mooy ñu bàyyi ko mu dellu ci njabootam la muy yéene mooy ñu yeewi ko mu dellu ci njabootam la muy yéene mooy ñu bàyyi jéggal ko mu dem ci njabootam suñ ko deful nag ah la muy def loolu lay def parce que ma xiifal pour mooy ñu bàyyi ma waaye du xaru du xaru innama al amalu binniyaat wa innama li kulli imri ma nawa waaw xaru da ko koy danga naan man naa def lii dee naa def lii jam sama bopp paaka naa def li naan ay doom naa def li eh, dugg ci teen bi loolu mooy xaru waaye koo xam ne dañ laa jàpp téye la nga ne du ma lekk fekk bàyyiwuñ ma ah waaye itam loolu du xaru di du ma lekk fekk bàyyiwuñ ma du ma naan fekk bàyyiwuñ ma waaw ah, kooku du xaru xaru kay mooy ki jóg rek jëmali dee ñu gaaw kar ko dajeeg mu gaañu nangam nangam waaye kii kii xaruwul kuy xaru kay doo dem fee kuy xaru da ngay dee rek benn yoon loolu la nit ñi war a xam te bi ci des ñu bàyyi dugal safara safara dafa tàng safara bala ngaa jël nit di ko fa dugal danga nga koy seetaat waaw innamal amalu bi niyaat de wa innama li kulli imrin ma nawaa de moom yéenewuloon de dafa yéeni ñu bàyyi ko kon nañ ko bàyyi ñu ko mënee bàyyi man nag li may ñaan mooy na ko Macky Sall baa rek mm-hmm. ko Macky Sall baa rek euh, Sonko yi na bàyyi xiifam mm-hmm. maa ngi koy ñaan digganteem mook yàlla diggante mook yonent bi maa ngi koy ñaan mu bàyyi xiifam maa ngi ñaan Macky Sall diggante moog yàlla diggante moog yonent bi mu sarax ko baal mu jeex loolu daal laay ñaan Macky mm-hmm. na ko baal parce que fi mu ne bu ko bu ko neexee rek jàmmam fu ko neex ci état bi ku lu ko neex mooy am waaw ki nga xam ne mu nga fa feebar te di ko yóbbu hôpital kay nga baal ko dañ mm-hmm. ko baal rek mm-hmm. moom itam na bàyyi xiifal bi na bàyyi lépp ngir yàlla ak yonent bi Macky Sall itam na ko baal ngir yàlla ak yonent bi mu jeex waaw na ko baal ngir yàlla ak bàyyi ne fii naan xiif xiif ba xiif bi indil ko gaañ-gaañ loolu jaru ko na ko baal ngir yàlla ak yonent bi waaw këli itam na bàyyi xiif ba ngir yàlla ak yonent bi mu jeex te ni ki démb sax ñuy gis li nga xamante moom mooy ay soxnaam ak ñi nga xamante ni ñeen ci ay avocat am ñuy wax laati gaafu ki nga xam moom mooy Sonko ndax boobu ba tey tamit mu ngi bëgg yàgg lu tomb lu teg ñaari ay bés yoo xamante ni nga tegaloo ko euh, lékkoo naanoo ci ñoom li nga xamante ni noonu la ñu ko waxee metti na ba démb soxna yi génn nañu di ñaan njekk ki nga xamante ni moom mooy président de la république ci méttit yi nga xamante ni seeni i borom kër ñu mu ngi koy dund ñu xool ko ci ñoom jéggal ko. moom daal moom ku baax xol ku baaxul xol sax kuy nit war naa ñaan président Macky mu xool rek doole ji ko yàlla jox xool teraanga ji ko yàlla jox xool fayda ji yàlla mu dimbali ko jéggal ko surtout xaw moo sax soxna yi génne waaye ba ñu génnee itam ba tey waaw ndax itam wax nañ dëgg ndax sa sa sa borom kër nag bu nekkee coono war ngaa mën a jël la nga man nga def ko kon nag Macky daal maa ngi koy ñaan diggante moog yàlla diggante moog yonent bi mu baal ko Sonko it maa ngi koy ñaan diggante moog yàlla ak diggante moog yonent bi mu bàyyi xéefal mu jeex parce que loolu amee it Euh, ci commentaire yi ndeysaan ñu ngi gis comme ni ko mu taxaat defee ci lépp loo xamante ni xew na fii ci senegal moom dañ koy dégg dañ koy ci gis mu wax ci ba wala boog bu dee wàllu poos la mu jiital ci li nga xam moom mooy dooleem am na ci ay commentaire yuy ñaan naan ko sëñ Mountakha la ñuy ñaan yàlla moom mu génn waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy président Macky parce que mu jégal ko parce que mën nañ ni moom jox na ko bopp te tamit kilifaam la lépp loo xamante ni ñaan na ko rek am nañu yaakaar que ni dina ko may kon tey buñ doon ñaan ki nga xamante ne moom mooy sëñ Mountakha génn waxtaan ak président Macky Sall loolu rek la commentaire yi doon ñaan. waaw xam nga euh, mooy li ma ñaan rek li ma ñaan mooy loolu rek mm-hmm. sëriñ Mountakha dafay kilifa. Mm-hmm. kilifa la xam ne ko am fayda la hmm. moom dara ñoru ko loolu lii ko sëñ Tuubaa bàyyil dara ñoru ko lu liggéey sëñ Tuubaa hmm. dara ñoru ko lu Tuubaa ci kanam dara ñoru ko lu sàmm Tuubaa loolu rek moo ko ñor leneen lu ci tegee moom dana ko ci mu mu ñàmbaas ko ci hmm. kon nag bu yëgee ni lii sonk téye nañ ko yëg na xiif na xiif bi dana ci wax waaw man loolu xam naa ko ndax xam naa yërmandeem xam naa fulaam xam naa faydaam su ci waxee bu fajo baax na fajul baax na waaw xam ne eh, yàggatul yàggatul Macky Sall Macky daal balaa ko sëñ mu Mountakha ñaan sax na ko def rek na ko def rek Macky na ko na ko def na ko def hmm. ci yërmandeem ci mbaaxam ci tabeem ci léppam sonk itam ci yërmandeem mu bàyyi xiifal bi hmm. mu jeex ñu daje rek ñoom ñaar waaw waaye ku ci toog ba ñu woola kilifa woola wax la nga bàyyi boobaa boobaa du neex danga war a bàyyi léegi balaa ñu laa woo parce que xam ne lii bu ko kilifa yéegee na la woo mun na yàlla tere yàlla tere yàlla tere bu ci bakkan faatu woon ah Macky dana am yeddeel de dana am yeddeel gu métti métti métti kon na ci teel a jóg dana am yeddeel gu métti ndax sa njaboot njabootam la ak lu mën a xew njabootam la ak lu mën a xew njabootam la ak lu mën a xew njabootam la waaw Sonko du yilif Macky Macky moo yilif Sonko waaw njabootam la Macky du yilif son Macky Sonko du yilif son Macky Macky moo yilif Sonko njabootam la na ko jéggal waaw ko jéggi rek waaw. doon ay kàddu yu rafet yoo xamante ni bu fekkee sama naataango yi am nañu question rek ñu dugal ko si mais bërki démb gis nañu ki nga xamante ni moom mooy njiitalu gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany def benn sortie euh, woo taskatu xibaar yi moom it def rafet loo xamante ni c'est à ñëpp rafetlu noonu parce que mënoon na ni kii di Ousmane Sonko li mu bëgg moom laa bëgg tey mi ngi si jafe-jafe mun naa toog man it pour jéem a kàttal sama bopp mun naa toog pour mën a jéem am li nga xamante ne moom laa moon mais def ko dafa génn def benn sortie waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy président Macky Sall wax ko publiquement ne maa ngi ñaan yàlla nga bàyyi ko moom ak ñi nga xamante ne ay détenus politique lañ nga bàyyi la ñu ñibbi seen kër li nga xamante ne moom lañ leen téye du du du loo xamante ni tege tegandi na waaw mu nekk lu rafet loo xamante ne sénégalais yi ñëpp rafet luñ ko ñu bëggoon tey sa xalaat ci loolu. sama xalaat mooy xalaat sénégalais yi <laughs> benn la rek li mu def rafet na rek. lu rafet ku gis xam ne rafet na lu ñaaw ku gis xam ne ñaaw na loolu rek la eh, ñu tëj sa nawle nga jóg wax ci ne nañ ko baal nañ ko génne nañ ko sarax loolu rafet moo gënoon mu wax leneen te yàgg-yàgg dana génn moom dana génn Sonko moom dana génn xam nga dana génn ci nii bàcc naa dana génn moom génn dana ko def moom xaw ma kan naka naka lay génne mais dana génn dana génn ci nii bàcc naa hmm. xaw ma nag ban façon génn la ci génn waaye dana génn de benn sikk nekku ci ne dana génn bon ñi koy ñaan nag ñuy ñaan président mu bàyyi ko hmm. mais dana génn parce que bu dee dañ ko joxe hmm. am déet ah bu dee du du génn bu dundee dana génn kon kay génn dana ko def moom génn Ousmane Sonko dana ko def mais nañ ko rafetal li buggaan def rafet na wax lu rafet ñaan lu rafet pour ñu bàyyi sa nawle loolu baax na voilà